ak ni ma ko waxee woon ci euh, ndoxteel yi muy ay euh, taalibe yoo xamante ne tey jii nag euh, mën nañu wax ni nekkuñu xëy na ci daaray nasaraan si ba tax na nag ñoom taalibe yooyu nga xamante ni nekkuñu ci daara yooye tey tàggat nañu leen ci weneen fànn muy nag ci wàllu entrepreneuriat mun am benn centre boo xamante ne dañu ko ubbi ca commune bu cees benn kër la lii nag benn taalibe la ñu ko duppee benn métier muy taalibe bu ne am ci métier moo jàpp. programme la bu ñu door foofee ca diwaanu ko euh, Thiès euh, sëriñu yi nag ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax Thiès googu dañu fay fekk ji Cheikh Anta Diop ak Sey Latira fexe nag ba taalibe bu ne am métier taalibe bu nekk yëngu ci wàllu xarale yu yees yi loole di ab programme bu ñu fësal ànd ci ak ndongo yi nga xamante ne ñu ngi ci daara yi nekk fii ci Thiès ak ay ndaw ñi nga xamante ne seen waajur dafa néew doole ñu jàppale leen tàggat leen lu jëm ci wàllu numérique bu ñu génnee de ñu mën a am ci lu ñu jàpp c' est pas parce que ñi nga xam ne ñoo jàng am bac rek ñoo mën a utiliser ordinateur di travailler comme ay euh, spécialiste informatique ak yooyu ñu ce qu'on veut mooy xale yooyu tey ñu may leen chance ñoom tamit ñu am formation boo xam ne vraiment bu intense la nag boo gisee pour ñoom tamit ñu mun a am des compétences en numérique. Thiès nag la ñu tànn fii la ñu connecté jënd ordinateur yi jënd lépp pour que pour que jeunes yi mun a ñëw centre la boo xam te ne formation bi doo fay dara. dañ leen di accompagner former leen jàppale leen bu ñu mun a am liggéey ñu ngi travailler ak suñu partenaire bi tudd Génération Salih te ñëpp xam ko li muy liggéey lu am solo ci ci daara yi ñoom ñoo nekk partenaire wu Sénégal ñooy doxal programme bi Sénégal ñaar fukki jeunes la ñuy commencé suñu commencé ak ñoom vraiment former leen nag ñu am métier former leen ñu génn ak ay compétence former wuñ leen pour théorie pratique la ak matériel bi ci war lépp jumtukaay yi ci war yépp mu ngi fi lépp waajal nañ ko lépp mat na pour mun leen defal formation bi te bu ñu génnee dafay nekk ay ndaw yoo xam ne pare nañu pour liggéey pare nañ te dañ leen di accompagner ba si ñu am seen liggéey accompagner leen ba si tey jii ñu mun a demal seen bopp liggéeyal seen bopp mun a développer ay entreprise ak ay start-up Thiès lañ tàmbalee ndax xam nga Thiès nag boo gisee ñu ñu ñu tànn ko mooy euh, boo seetee lu si bëri dakaar lay yem am ko région yu bëri dañuy am du ñu am lu mel nii du ñu am soutien yu mel nii du ñu am organisme peut-être yu ñëw ak formation bu gratuité nii jox leen ko donc tey ji bu ñu tànnee cees dañ ko tàmbale mais li ñu bëgg mooy région yu bëri ci Sénégal ñu mun cee dem ba tey jii vraiment ji région jeunes yi nekk ci région yi am même chance que ñu nekk biir Dakar te ñoom tamit ñu mun a développé toog sa gox jàng am say compétence liggéey mun a développé sa sa vie. si sa biir sa gox. kiit jiite kuréel gii di génération Sadikh nekk ab sëriñ daara. nee na lii lu baax la dina gën a jàppale ndongo yi rawatina ndongo yi nga xamante ne dañuy dem ba wàcc alxuraan génn te duñu am lu ñu def. dañoo seetlu ne dañ leen a desal ginnaaw daara yi ak ñu ni ci wàllu woowu. su ma nee daara yi mooy les couches vulnérables rek en quelque sorte. kon on est en partenariat avec pour faciliter leen loolu au niveau du Sénégal am na ñoo xam ne déjà ñu ngi en stage am na ci ñoo xam ne ñu ngi taxawal seen i fi bopp am ñoo xam ne ay taalibe preneur sax lañ leen tuddee ngir ñu taxawal seen entreprise bopp taalibe entrepreneur ñu tënk ko def taalibe preneur ñii di promoteurs yi ak sëriñ daara yi nee nañ lii de baax na lool di ab lëkkaloo boo xamante ni ku ci nekk war na leen ñëw fekk si leen jàppale leen ngir ñu mën a tàggat ndaw ñi nga xamante ne seenam njàng daa yàqu wala ndongo yi nekk ci daara yi ba ëllëg bu ñu génnee ñu mën a demal seen bopp ñu koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Anta Diop euh, Sey Latir am na solo lool muy taalibe yoo xamante ni euh, tey jilee euh, xëy na nekkatuñu ci ñu ngi ci daara ak ñi nga xamante ni tey seenum njàng yàqu na ñu tàggat leen ci wàllu entrepreneuriat nekk na lu am solo dañuy jàll léegi léegi ci xët yu njëkk yu yéenikaay ak Chérif Dia lay doon.